salaamaaleykum mbokk yi maa ngi siyaare ñëpp maa ngi leen di nag lu taxoon ñu amaloon grève bii nii. tur bi la tur na la. maa ngi jàngee sotti mais li taxoon ñu amoon ñu amal grève bii nii nekkul leneen lu dul dañoo jàpp suñu benn camarade de classe bi nga xam ni bi nga xam ni alpha lay jàngee mais si manifestation la ko jàppee yéen ñëpp xam ngeen li justice bi am si dëkk bi nii normalul mais tey jii nii bu bu woon ñun lay doon kon tey jii nii tey jii ñu amaloon grève génn école bi te gis nga te gis nga day gën a day a taxarnaase lii nii lii nii du yam fii kase barke Serigne Babacar day gën a taxarnaase incha allahu rabbi day gën a taxarnaase parce que parce que suba suba tee ko dina gën a taxarnaase école yëpp dañuy président de la ne moo nekk Thiar Moussa le maire ñëpp ñu gën see jàpp balaa mbir mee gën a fi loxo nag gis a a addu naa nekk man moo naa nekk keneen ak keneen kon tey ji doo war ju xeex ñu libéré ko parce que place am du place am du la dañ koy waxta dee dañ koy waxta dee comprendre beneen bi sax mooy muy monsieur le maire muy préfet teel leen see jug yàlla ma tuuti teel leen see jug balaa lii balaa balaa lii balaa lii ëpp loxo teel leen see jug balaa muy ëpp loxo parce que gis nga manifestation bii nii bii ñu commencé manifestation bii ñu commencé day gën a continuer incha allah rabi bu ñu ko téyewul bu ñu ko bàyyiwul bu ñu ko bu ñu ko si yësoo bàyyiwul ko day gën a continuer

mais est-ce que rafet si image yu Tivaouane tey chaque jour ñuy gis élèves yi di di di di xeex élèves yi di wax est-ce que aduna lii rafetu si image Tivaouane d'accord naa mais am na loo xam ne lu ko lu ko jar rek dañ ko siy def. lu ko jar si. parce que gis nga gis nga ñun élèves yi donte don donte ay élèves lan sax mais ay patriotes lan doon war a xeexal suñu réew ay patriotes lan ñun ñëpp ay patriotes lan. gis nga ay comprendre tey jii Carla, libere, Carla, libere, Carla. Liberec! avancez avancez les gars avancez avancez leen. oh dégg nga kilo go. avancez avancez leen. delloo gaaw delloo gaaw delloo gaaw béyee. libéré libéré libéré. ma ma ñëw fii waxtaan ak moom parce que lii lii lii lii dafa diis si ñun foog ñu waxtaan si ba foog ñu waxtaan si ñu defal solution. nekku fi inspecteur bi néew fi comme que néew fi ànd ak maire yi ñu ne suba incha allah rabi ñu ne benn délégation bu ndaw ñëw dugg waxtaan ak moom. parce que li ñu yëkkati li ma yëkkati moo ñu yëkkati yéen ñëpp. oui diis ak naqar kon nañ ko manifester fépp. nañ dem mairie nañ dem mairie ami da daal di daal di manifester li li nga xam ni moo ñu a jóg incha allah rabi. mais bi nga ñëwee malheureusement dafa fekk na la lief en personne la monsieur Amadou Dia actuellement dafa nekk en atelier à Thiès en séminaire à yaa ngi dégg léegi ce que vous allez faire da ngay bàyyi maintenant bu jaaxalee son séminaire yaa ngi dégg vous allez désigner maintenant des délégués. yéen ngeen ñëw ngeen rencontré ak waxtaan ak moom parce que présentement moom nekkul moom nekkul les autres inspecteurs aussi ñoom ñi nga am formation fële ci yeneen yi école yi quoi moo tax y' a personne bi man mii chargé du personnel man maa fi moo tax léegi ce que vous allez faire vous allez maintenant revenir ngi ngeen ñëw tranquillement ngeen ñenn ña xaar après ngeen ñëw rencontré ko léegi incha allah. kii yow boo doon ngay fay yaa gën a xam loolu. yéen ngeen ay suq yéen ay suq ngeen ngeen nekk fii di wax yéen ay suq ngeen yéen ay suq ngeen. di def ñu dégg lu wax dégoogee monsieur le maire bu ngeen ko soxlaa yéen équipe bi mënu ngeen ko fekk ci kaw mu ngi nii mooy passé information bi war ngeen désigné ay personne ñu dem gis ko wax personne bu fekkee ni yéen ah, unanime d'accord ngeen trois personnes camarade de classe bu jógee dem manifester wu ñu jàpp ko te mu war a nekk si classe yi am na loo xam ne rafetul mën naa nekk man mën naa nekk sa sa doom mën naa nekk kii kon tey jii nii dañoo jug taxaw pour xeex loolu noonu pour ñu libéré ko tey jii bu ñu ko defee rek bu ñu ko defee rek gàcce la suñu rafetul na si image Tivaouane mais gis nga li gën a rafet mooy ngeen wax ngeen wax responsable ñu bàyyi jibi jibi la tudd alpha fii lay jàngee. ak moroomi élève am yi ak professeur donte donte donte ku si nekk sa xol moo lay yëkkati si manifestation yi parce que nit ku nekk su ñu ko bëgg ngaa bàkkoo leen mooy patriote parce que ci yem doom pays patriote nga bu njëkkee di manifesté wu dara bu njëkkee di manifesté dara dañu war a taxaw surtout mu doon injustice ñëpp xam ne injustice bi fi am kon tey jii nii élève boobu noonu noonu nañ ko bàyyi sinon manifestation bi nii élève yi école yëpp kenn du si jàng incha allah manifestation bi nu ko bàyyiwul suba suba lu projet bu nu ko bàyyiwul suba benn benn benn école du jàng ñun ñoo ko wax ñun man maa ko wax ak élèves yi benn école du jàng continuer c'est à l'infini buñ ko bàyyi nag ñu bàyyi ñu bàyyi mu sedd buñ ko bàyyiwul mu continuer incha allahu rabi. c'est pas normal lañ bàyyi. responsable bi nag lañ pour wax ak moom pour ma xam ni kat élèves yi jug nañ pour kaas lii nii. parce que lii dafa dafa ñaaw dafa ñaaw. i faut il faut ñu wax ko. place am si classe yi la du si du si baro yi. place am si classe yi la intervention lañ bëgg. jeudi ba léegi booy baa ngi foofu xamuñ fu ñu taxaw. préfecture lañ jóge inspection ak fii yeneen institution dëkk bi suñu amul fu ñu suñu amul suñu amul fu ñu dem ci yéen la ñuy ñëw. ci wàllu mais mani. waaw incha allah yaa ngi comprendre parce que tey manifestation bi lu ko waral muy démb ak tey amoon na lu ko waral mooy si benn camarade de classe doo doon da doon wu ñu jàpp ko te si école bii Alpha lay jàngee te aussi tamit élève la ba ba tey ñu téye ko démb buñ defaloon effort dañ koy defeere si élève ko koo xam ni bàyyiwuñ ko moo tax ñu moo tax ñu manifesté nii yóbbu na leen Thiès yóbbu na leen Thiès yóbbu na leen Thiès mu ngi Thiès mu ngi Thiès mu ngi Thiès projet bi waaw mineur la ama loo xam ne rafetul bari am dama jëwul dal lañ ma ama loo xam ne rafetul sa ampleur ci waawoon donte yéen responsabilité ñu ñëw wax ak yéen ni jëm koo régler kur ko gut sinon benn sinon bu subaa sinon bu ko bàyyiwul benn école du jàng benn école du jàng bu leen bu leen menace non c'est pas une menace c'est pas une menace mais da lay wax da lay wax ma déglu ma moom man lay doon man lay doon wala mu doon kenn fii nii wala mu doon suñuy doom kon tey solidarité boobu dañ koy dañ koy dañ koy doxal suñu biir ba mu amal lii tey gis ko noonu tey yeneen responsabilité wax leen si dox leen si ñu libéré kooku noonu sinon lii dina continuer ñu ngi Thiès jibi jibiri jibi jibi garba jibi garba ak yeneen élève ak yeneen élève ak yeneen élève ak yeneen élève yu Tivaouane professeur yi jàpp nañ leen bàyyi ñu jàngal ñu am na ci am na ci ay professeurs yu ci bokk yi génn ci manifestation ñu jàppale fii nag élèves yu bari nag taxul leneen lu lor rek dimbali leen ngir yàlla da leen da leen ñaan parce que yeneen responsable yi yaa ngi ko mais ñun ay jeunes lañ ñun ay jeunes lañ waroon am na benn kàddu boo xam yéen war ngeen ko war ma topp dinañ ñaan rek dinañ ñaax tamit dimbali leen ngir yàlla ñu libéré kooku noonu ñu nekkaat suñu jàmm kon ne suñu parce que parce que la majorité ba nit ay ay yoo xam ne yëpp léegi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm bu baax. ok di leen remercier. parce que dama jàpp ni nit aussi bu jaaxlee si mu yaakaar wàllu rek foofu lay dem du dëgg. fii ñi fi nekk ñëpp ku ci nekkul suñuy doom suñuy jarbaat lañ parce que fii Tivaouane la samay maa ngi ci seen léegi gis naa ci léegi sama doom gis naa ci léegi sama jarbaat xam nga kon mouvement de jeunes la mais li ma bëgg a attirer seen attention mooy yéen ay élèves Tivaouane ngeen bokkuleen leen ak élèves yeneen dëkk Tivaouane dafa am lu mu laaj ak lu mu laajul fii dëkku Seydi Hadj Malick la ngeen a contester ñun bi ñuy jàng grève nañu contester nañu def nañ lépp ca one est là où on est aujourd'hui il faut ngeen bàyyi xel ni Tivaouane dafa am lu fi war a am ak lu fi warul am Tivaouane toj waru fee am parce que léegi ngay toj boo ko tojee tamit yaa koy jariñoo après donc loolu c'est pas intelligent ensuite ay élèves ngeen demee ngeen ñaan yàlla nekk ay étudiants ñun ñuy compter ci yéen l'avenir de Tivaouane ñu ngi jóge ci tukki boo xam ni ma wax leen ko daje nañ fa en France avec les ressortissants étudiants yi nga xam ni Tivaouane lañ dëkk. y a moyen d'une semaine ñu dem doxi loolu xam nga lañ lañ doon dox. que élèves yi nga xam ne ñu ngi dëkk Tivaouane bu ëllëgee bu ñu tolloo ci jàng ba war a dem bitim réew ñu am ñu leen gàttandu toppatoo leen te ragal leen kon ngeen xam ne ñun bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul bu ngeen ñu gisee bu ngeen ñu gisul ñu ngi préoccupé wu ci seeni bëgg-bëgg ak ci seen avenir kon bu leen jaawale fii mairie la institution la buy liggéeyal dëkk bi mhm. luy doxal dëkk bi rek moo tax ñuy jóg mhm. bu ngeen ko tojee tamit seen mairie la ba pare mairie defal naag defal naag defal naag dañuy waxtaan mairie mairie du jàppaate ñun duñu jàpp kenn duñu jàpp kenn police mooy jàppaate mais li ñu man mooy bu ñu jàppee suñu njaboot ñu dem ñaan pour ñu bàyyi ko loolu te dinañ ko def dinañu jóg dinañ dem dinañ wax fa ñu mën a waxe bu ñu dugaatee léegi dinañ woo monsieur le maire Demba Diop mu activer ay leviers pour que ñu delloo xale yi ñu dellu ci seen i famille mais nag mais nag mais nag mais nag mais nag il faut que aussi ngeen di éviter ñu leen di instrumentaliser ci ay combat yoo xam ne du seen combat yéen yéen a ngi dégg yéen a dégg yéen da ngeen di jàng di jàng ñun ñu ngi def effort di maye ay bourse ñu ngi def effort di fexe ngeen génn bitim réew loolu xamagu leen ko mais ñu ngi koy liggéey bu leen yàq loolu ñu ak yéen partenariat la bu leen nangu aussi ñu leen di manipuler di leen dugal ci loo xam ne du seen combat yenn yi combat politique la bàyyi leen ko ak politiciens yi yéen ay élèves ngeen da ngeen di jàng fexe leen ñun mettre leen dans de bonnes conditions ngeen jàng am seen i diplôme jariñ seen i njaboot li ngeen di wax nag c'est légitime seen ay morom la ñu jàpp leen c'est bi biñ ci tolloo dañ ko daan def comme yéen ñu taxaw def pression pour ñu bàyyi leen ca incha allah dinañ ci taxaw luñ ci man dinañ duggee léegi dinañ woo préfet wax monsieur le maire ñu bàyyi leen ngeen dem jàngi delluwaat ci seen école loolu mooy seen rôle noonu loolu mooy li nga xam ni moo fi am looloo fi am mais bu leen nangu ñu leen di dugal ci ay taal ay lakk ak yooyu bokkul Tiwaawan loolu du xaalu Tiwaawan loolu du yëfu Tiwaawan ADG bi dégg na ko parce que monsieur le maire ñëw jox na ko lépp li nga xam mooy information pour nga xam ni mu yëggee ko mu yëggee ko monsieur le maire si comprendre mu yëggee ko monsieur le tey jii nii moom taxaw na waa ni dinañ moom ñoom dinañ si dox ay jéego dinañ si dox ay jéego bu ñoom bu ñu dox ay jéego ñoom ñu tamit ñu ko def seen jéego yi ñuy dox parce que lii parce que lii parce que du tey kase wax naa la du tey kase la yem du tey kase la yem kon nag monsieur le maire préfecture inspection ñooñu ñëpp ku si deful intervention lii dina ko ne te benn école bi jàng incha allahu ngi nuyu maa ngi tudd Ndeye Couma Seck maa ngi jàngee Soxsu élève de terminal L2 bon tey suñu moromu camarade suñu camarade de classe bi ñu jàpp mu tudd Djibril euh, Djibril Mounima Garba suñu xarit la ñun mënuñoo concevoir nekk si école yi di jàng ñu xam ni moom mi ngi ci prison xale bu ndaw la nañ ko bàyyi mu jàng fi mu nekk du place ça ne sert à rien ñu denc ko foofu noonu dinañ ko yàqal avenir am te pourtant mën na et génn ci continuer jàngam ñun na dañoo décider luñ dañoo décider arrêté cours yëpp tant que garba génnul parce que du am deuxième semestre sans garba parce que mënuñoo concevoir loolu nañ ko bàyyi mu génn xale bu ndaw la nañ ko bàyyi mu génn jàng liñ ko tëj foofu noonu ci ginnaaw foofu du place su garba nañ ñu dimbali jiitaluñu agressif dañuy dox nànk-nànk génn suñu rakk yi instant a de terminal yaa comprendre kon nañu ba ñu génn ñu génne suñu xarit bi ñu konne suñu jàng bi jàng ko ça ne sert à a ñu téye ko fa ay xale lañu suñu raq yaa ñu topp kenn xamul leen ci mën a dal nañu bàyyi xale bi ngir yàlla war a suul mu génn dañ leen koy ñaan ngir yàlla war a suuli nañ ko ba mu génn àndal di jënd cere ñu jàpp ko. li ñu wax li ñu wax ah. nee nañu dafa génn doon jënd soow. moom ak yaayam ñu jàpp ko. loolu la ñu wax parce que na version yu bari dina dinañ ko dégg mais ah. la ñu ko bàyyi mu génn. nañ ko bàyyi mu ko bàyyi mu génn ça ne ñu téye ko foofu nag xale bi amagul sax vingt ans. Ah nañ ko bàyyi mu génn ñu ngi koy yàqal avenir ñun tamit ñu tekk di ci topp di ci wax suñu rakk yu ndaw yi élèves primaire yi ñëpp topp ñuy dem ba ay lycée tali bi ni mu ñàkk a dee ay xale yu ndaw topp ñu nañ baay bàyyi ngir yàlla wasul bu fekkee yéen bëgg ngeen suñu avenir yéen ñi ñi dañu dégg autorité yi bu fekkee bëgg ngeen suñu avenir ba leen Garga mu gën a jàng moo gën fa ko ak yeneen moromam nag parce am na ay Habib Ndiaye ñoom ñëpp ñu fa nekk di nekk si ginnaaw jaru ko nañ leen ba ñu génn waaw waaw ngi ne waa université bañ jàppale seen coordonnateur bañ waa bañ étudiants yi dugg ci dañ koo mu génn ñun nag comme que dañoo ñun ñu mënuñoo wala mënuñoo doxal suñu bopp tant que génn wuñu garba kenn du jàng ah, waroon nañ démb dañ waxaat tey démb def nañ mobilisation dox nañ ba sonn tey aussi tamit defaat nañ groupe doxaat nañ ba sonn ñun tant que libéré wuñ leen ñun duñu sonn ci dox bi ñun duñ sonn ci marché bi ah, ñu ngi interpellé nag képp koo xamante ne am nga carte fii ci dëkk bi Tivaouane nga xam nañ ni Tivaouane nekkul dëkk boo xamante la jàmm ñoom bu ñu woyee ay duñ si wuy si ñu ngi interpellé monsieur le maire préfet bi département bi yëpp képp ku fi am kàddu ñu ngi lay interpellé bu jëree sax ñu interpellé monsieur le président de la république ñu ngi lay ñaan au nom de tous les élèves du Sénégal ñu ngi leen di ñaan ñu libéré parce que élèves prison du seen place école bi dem ñëw si école bi jàng ñibbi mooy seen place kon nag ñu ngi leen di ñaan si njëkk ak teranga ngir yàlla wa jëmmi may élèves ñu dellu seen kër ah mën a delluwaat si école yi jàngiwaat loolu kese lañ leen ñaan ah loolu rek la ah woon parce que daaw nañ dem si autorité yëpp dem nañ la yem ndax lii buñ ko réglé wul dañuy di xeex c'est à l'infini gis ngeen comprendre tey jii nii tey jii bu ñu taxaw courage les bras day day ñaaw parce que baaxul si ambulance ci waawan tey ay jeunes la ñun ñëpp kenn ku si am ba am nga benn avenir